Macky Sall give me my money. Macky Sall jox ma sama 400000. waaw Macky Sall give me my money. Macky Sall jox ma sama 400000 jox ma sama xaalis pétrole ak gaz bi. message bi may lancé mooy 400000 euh, appellation c'est une hypothèse mais tey jii suñ demee ba peuple bi ñëw fii nii mobilisé wu c'est parce que tout simplement dafa am loo quelque quelque chose boo xam ne dafa luus ci Sénégal léegi tey Macky Sall dañ koy ñaan dañ koy ñaan. mu leeral mbir bi maanaam pétrole et gaz bi mu leeral ko xam ne euh, il est en train de euh, voler l'avenir du pays il est en train de de comment dirais-je de de violer tout simplement la confiance dont on l'avait euh, confié dañ ko confié benn mission mooy lan ñu ñu yor si anam yu rafet mais tey jii su demee ba à un moment donné Macky Sall ñu koy. muy muy def quelque chose loo xam ne nii ay ay wut la kon vraiment dañ koy dénoncer kon mobilisation bii nii vraiment c'est mobilisation forte ñun ñun peuple boo xam ne nii dañoo dañoo dañoo doon benn dañoo bëgg rek Sénégal ñëpp doon ay patriote am benn si benn benn benn civilité boo xam ne nii ak benn civilisation boo xam ne nii dañoo civilisme benn citoyen parce que doomu aadama ba tey jii Macky Sall ñu ñëw ba ne am na tey jii moom deuxième mandat moom mu naan brigué brigué deuxième mandat ñu wax ne dañ dañoo luy gaz ak pétrole ak gaz bi te ñu koy nuyee kon Aliou Sall tey jii moo war a def de telle leeral leeral mi Sénégal mën a nekk si jàmm parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar kon nag l'avenir du euh, la corruption contre ne cesse pas dans pays vraiment le Sénégal n'ira nulle part. Donc nous voulons tout simplement faire appel au président et à Aliou Sall qu'il euh, puisse tout simplement faire de telle sorte que, que les gens puissent être dans la paix et dans la sérénité. loolu lañ bëgg vraiment.